seen Rafa jus ak see ba léegi di 100 pour cent naturel coono moom jeex na fi ndaxte Rafa jus 100 pour cent naturel amul benn colorant amul it benn additif artificiel li ngeen di faral di gis yenn xeetu jus yi mu koy taaral ak di koy yàggal dama ni mbokk yi Rafa dafa wuy turam amul benn substance dafa doon jus conditionné léppam di fruit 100 pour cent fruit naturel lay doon loo ci mën ci bëgg ma doon xeetu fruit am na buy am na bissap am na tamane ñu gën koo xam si Dakar am na jenjemb ñu gën koo ràññee si jingeer ak lépp lu ngeen bëgg si fruit si liggéey bu mucc ayib mbokk yi ne woon naa la Rafah jus amul arôme artificiel amul colorant kenn yokk si suukar ba doo ko mën a naan dafa doon lu équilibré boole ceeg nag liggéey bi sedd na sell na ndaxte Rafah jus lépp la respecté mbokk mi toog jeex na lépp loo ci bëgg si quantité mu doon tey un litre wala xaaj bi wala sax bouteille bi gën a ndaw mu doon da nga nekk si épicerie ñu yor mboole magasin bu dee da ngeen bëgg en gros demi groupe di def détail wala sax ngeen di jënd sur commande Rafah jus 100 pour cent naturel yembal na lépp fu ngeen dem fekk ko si

aousubillahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di siyaar di leen dokkeel ci weeru tedd yi ñu nekk di ramadan al mubarak ñaan yàlla yàlla na ko yàlla uh, delloo sa yu bari te fekke ko ñun ñëpp ci tal di siyaare bu baax sunu kilifa yi tedd yëpp rawatina Cheikh Mouhamadou Mountakha ak mboolem al ummal islamiya eh, di siyaare mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ëttub xam-xam bi di Rafah TV di leen nuyu ñoom ñëpp di leen sargal ci weer wi yàlla nañu yàlla defal tawfiq ak taysiir bañ mën koo màng te rafetal nañ ko mànge ñu ñëwoon nag ngir bëgg la laayante biir ak mbokk yi ci fàttalante ci weer wi solo su am di weeru màgg-màgg woo xam ne pase bi yiw la yàlla baaxee ko xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy weer woo xam ne la ci nekk ci baax ak yu rafet ak yu rafet kenn mënu koo takk euh, doy na ci wax ne bokk na ci ay ngëneelam lu baax da ci yomb ab safaan da ci jafe ndax sax na ne bu dikkee dañuy jëng seytaane yi seytaane mi nga xam ne lu bari doomu aadama la koy dal seytaane koy teg bu weeru dikkee day néew doole dañ koy jéng kon baax dana yomb waaye dañuy ubbi bunti aljanna mooy kon def lu la yóbbu aljanna ëllëg day jàppandi kon passé la boo xam ne jullit yëpp war nañ ko xam war ko fonk yàlla def ci biir it genn guddi goo xam ne ëpp na junni weer muy laylatul dara nga xam ne junni weer boo ko doon seet juróom-ñett fukki ak lu teg la nga xam ne benn guddi nga man ci am nga ne li lu jege eh, téeméer at loolu rëy na lool. kon yiw bare ci nekk woo xam ne bu dikkee jullit ñi war nañ ko fonk war nañ koo màng war nañ ko bàyyi xel ni ñu ko bàyyee xel ak di ko fonk nag mooy tënku ci ndigal yàlla yi di woor bëccëg yi waaye di taxaw guddi yi di ko dundalit jàng alxuraan ndax weeru alxuraan la ci la alxuraan wàccoon euh, yonent yàlla Muhammad mi ko yàlla wàcce woon ci moom saa bu Ramadan ma saa dikk day gën a bàyyi xel alxuraan Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu sunu sëriñ it ñëpp xam nañ bu Ramadan ma saa dikk ni muy fonke alxuraan di mu ko yokke waaye weeru def lu baax la dimbulante dimbulante ci si duggee suñu diggante eh, yonent ay nee na ku dogloo ku dogal aji woor lu mu am ci tiyaaba ca koor ga da nga am tiyaaba ju ni toll te du yàq tiyaaba am dara kon am na solo lool bu daan dikkee ku yàlla man man loo dara mu bàyyi xel mbokki jullitam yi nga xam ne danañuy woor ba ngoon ñaare te am lu ñu jëfandikoo lu ñu xewloo jafe leen kon weer wu ñu war a fàttalikoo dool yi la ndax yépp aw yiw la woo xam ne woor ba ngoon nga am tiyaaba ju tol noonu amaale yeneen tiyaaba yu ñeen sa yeneen i mbokk woor loolu lu rëy rëy lu koy maye lu ne jar na ba fa bàyyi xel kon di ko woor ba gi koor nag ñoo xam ne mooy téye sa bopp ci lépp luy tax a loo dañuy wax ne ñaari farat la am nii niyya wal kaffu anil muftiraat am na ay sunna nag bokk na ca di teel a dog ginnaaw bu jant bi sooyee ak di yéex a xëdd xëdd mi ngi tàmbalee bu xaaj guddi jotee képp ku lekkati dara ginnaaw xaaju guddi yéene ci xëdd xëdd la waaye nag li ñu gën a sopp mooy nga bàyyi ba jàpp jege nga xam ne boo nappee fukki minute fukk ak juróom ñu wax ne jàpp jot na foofu lañ ko gën a tàmmoo donte nag bu xasee guddi xasee xaaj rek euh, fa la tàmbalee euh, yooyu ñu di ko bàyyi xel baax a baax waaye bàyyi xel bàyyi loo xel mbokk yi ni koor li ko tax a dëgg-dëgg wàññi jëfandiku ci la bokk bari ci nun nag rawatina ndaw kondaa yi ñu mel na ñooñu nga xam ne dañoo jàpp rek ne bu jant bi xasee so balaa fajar lépp lu ñu waroon a jëfandikoo ci 24 heures yi war nañ ko dugal ci diggante boobu loolu baaxut ci wér-gu-yaram baaxut ci koom-koom baaxut ci dara baaxut ci ruuxit nag euh, noonu sëriñ boo waxee ne am na ci jaam yi ñoo xam ne bu waxtu dog jotee wala waxtu xëdd boo leen fekkee ñu ñu tiim ndab da ngay defee ay nag lañ loolu lu ma di bàyyi xel lañ kon du weeru euh, soppi programme yi lekk waaye wàññi lekk la wàññi lekk lu ñu bàyyi ko baax ba nit ki mën a sawar. Euh, ba mën a jaamu yàlla bu ko defee bu koor gi jeexee ak wér gi da mën a yokk ndax koor dana tax a wér ci kaw nag euh, maayda gi nga xam ne moom muy muy muy féex waaye bu fekkee ne nag ba bi la yendoo euh, féex waaye bu guddee nag ñu sol ko loo xam ne du ko àttan loolu solo ñoo xam ne weer la woo xam ne it bépp cër bu nit am da cee war a woor sëriñ bi noonu la ko jàngalee fa sawmu ay yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi dëgg-dëggi koor cër yëpp koy def kon sa bët na woor bul xool mukk ci koor gi lu amul njëriñ kon toogal tiim alxaan di ko jàng toogal tiim téere xam-xam wala nga jàkkaarloog ay waxtaan diini yu am njëriñ di ko jàng say nopp bu ci déglu lul loolu bul dox benn jéego bul jëm ci loolu sa loxo bu ci laal lu jëm ci loolu say xalaat sax waaw daa wax ne daa woor xalaat sax nda woor ci lépp lu amul njëriñ bu ci xalaat loolu nag mbokk war nañ ko bàyyi xel ci jamono ji nga xam ne am na ñoo xam ne bu Ramadan dikkee dañ ko jàppee paseb caaxaan di ci woote ay xeeti jataay yoo xam ne lépp ay fola di di foyee loo xam ne kenn du ko foyee ay kaf ak di reeloo nit ñi dëgg la xëy na léeg ñu mën koo nangu ci ay barab waaye jëmul ci diine nag diine kenn du ko foyee diine kenn waru ko foyee ay attee diine deesu ko deesu ci masla loolu moom saa buñ cee wax ci fulla ak bëgg a jariñ nit ñi la war a tegu léeg-léeg ñu lay la dañuy dàq koor koor nit ñu baax ñi dañ ko daan woo muy ñëw waaye kenn ko dàq waaye di ko jàmbat ak di ko ñaxtu loolu ku sa gëm yàlla dëgër nga xam li koor làmb ci aw yiw doo ko def mukk da ngay yàkkam ci ñëw su dikkee it da ngay bëgg ci passé bi nga am ngir man cee am bénéfice aw ton tono gu dul jeex man ci am yiw bu bare bari balaa jeex nga xam ne saa bu weeru jeexee rek fekk yow mën ngaa baat ne jégal na sa bakkar yëpp ndax liñ ci santaana ci lu baax lépp def nga ko loolu lañu santaane kon na cëri di woor làmmiñ woor bu la fekk ngay wax loo mun jëriñ waaye jàpp ne boo waree ba ngoon ba ba koor daal li nga mën a fàttale su bopp koor gi mooy na ci ay garam place yoo xam ne la ñuy wax def amul njëriñ mag ñu baax ñi jàngkati alxuraan la ñu woon waaye bu ramadaan mosaan dikk dañ koy ful ñu bari ñoom dañoo saxaloon su ramadaan tera bés bu set ñu wàccu kamel te du yàq dara ci liggéey yi war liggéey jëy jàngale ak lu baax la ñu war dafee ci lépp ñu ngi koy def waaye dañu yokk seen seen seen daa ndax xam ne passé bi yiw la loo ci def ci lu baax day yokk loolu ñooñu ñooy suñu royukaay waaye li jamono andi léegi nga xam ne dañuy dem ci écran yi eh, lenn lu ne ñu wut ci ay yëf di di di foyee diina ji léeg-léeg sax di ci dugal yoo xam ne bokku ci eh, ay atte di ci wax yoo xam ne yow mën naa am sa yéene mooy reeloo nit ñi waaye nag nañu xam ne nit ñi yàlla bindul leen ngir ree fal yadxaku qalilan wal yabku kathira loolu la ñu suñu borom waxoon nañu reelu néew tey jooy lu bari ndax am na ci kanam luy ñëw loo xam ne la cay xew xamaguñ ko kon tiit loola war naa tax suñu ree war a néew kon fexe ba nit ñi tegu ci yoon fexe ba nit ñi di góorgóorlu ci lu baax fexe ba nit ñi gën a gëm diine gën koo jàpp foofu képp kuy kuy kuy dox ci lu baax foofu nga war a dox képp ku yor luy jàllale ay xabaar ci foofu nga ko war a jëmee waaye di reetaanloo nit ñi bëgg jàpp ne koor aw tiis la musiba la moo xam dañoo bëgg nit ñi fàtte ko koor du musiba mbokk yi koor aw yiw la aw yiw la woo xam ne ñépp dañ cee war a bég kenn waru ko jàmbat ñun nag bokk na ci suñuy nattu bokk na ci suñuy njuumte bokk na ci suñuy défaut ci yu mel noonu la ñuy la ñuy dund bu koor dikkee lépp jàmbat koor la koor gu tàng naka na nga dafa koor gu tàng gi mbokk yi nañ bàyyi xel ne ca Badar Kubra ay saxaaba ridwanullahi alayhim ca saxara bu tàng boobee ña nga woon ci xare ba rek amoon ci ñoo dañoo woroon ñu baax ñëpp loolu la ñu dund am ci ñoo xam ne ni waxuma la Ramadan waaye weer yu bari ñu ngi koy woor ngir yàlla kon yooyu kenn wërta jàmm ramadan aw tàngoor ak seddam bi ci desit nag ginnaaw lépp yiw la yàlla digalu jaam ñi lenn loo xam ne moom yàlla sunu borom moo ci jariñu lé déedéet lépp lum ñu sant ci lu baax ñun ñoo ci jariñu yuxillu lahum at-tayyibaat wa yuxarrimu alayhim al-xabaa'is la wax lu mu ne dagan na lu mu ne baax na xam ne yiw la waaye lu mu tere lu bon la kon mbooleem lu baax lu ñu digal ñun jaam ñi ñoo ci jariñu kon koor suñ njariñ a ci nekk amul benn lu muy lu muy lu muy jëriñ yàlla moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ci mën a ñaanam bokk na ci li mu doon ñaan yàlla falaa tuaaxidhum bimaa laa yanqusu bu leen jàppee mukk yàlla suñu borom jaamu yàlla topp yàlla gi nga xam ne euh, wala boog bàkkaar yi nga xam ne ñu koy def te wàññi dara waaye nag wala humu habil ladi laa yanfa'u yàlla nga leen may topp yàlla mii nga xam ne du la jëriñ dara luñ la mën a topp lu mu bari bare du tee nga yàlla sa dara du wàññiku ci ñàkk topp gi kon bu ñëpp maasee woon di mooy yàlla du yàlla du yàlla bu ko ñëpp maasee woon di topp yi du ko dolli dara kon fa laa tu'aaxizhum bimaa laa yanqusuk wa lahum habil ladhi laa yanfa'uk lu mat a dégg la topp gi ñuy topp yàlla ñun lay jariñ mooy gi ñuy mooy yàlla ñun lay wàññi kon lu yàlla digle aw yiw la wari su ko jàmbat wari su ko ñaxtu wari su ko jéem a dàq wari su ko jéem a fàttaloo nit ñi li jaadu woon kay mooy kenn ku ne ñu fexe ba waxtu wu ne nga fàttaliku ne yaa ngi ci koor yaa ngi ci koor lan ci def lu baax yaa ngi ci ci tudd yàlla yaa ci koor ci doo wuute jàkka yaa ngi ci koor ci yu baax yooyu yaa ngi ci koor ci dimbale koo dajal tanee ko ngi dimbale ko ngir yàlla loolu la ñuy séenu ci ab jullit loolu la ñuy séenu ci ab jullit kon bàyyi ko xel di ñaan yàlla sunu borom it euh, ren jii mu dajal di nattu di aw tiis wu daj àdduna woo xam ne ñëpp war nañ ca bàyyi xel lelu xel yàlla fàttaliku la mu waxoon ne zaharal fasaadu fil barri wal bahri bi ma kasabat aydi naas ak la mu waxoon ne ma asaabakum min musibatin bi ma kasabat aydikum duñu mën a dal rek ak fu mën a jaar daa jaar ci foofa ci ay ci yàlla bàyyi ko waaye nag ñoo ko sabablu kon delloo suñu bopp ci yàlla gën a góorgóorlu ci lu baax gën a góorlu ci njub xam ne fii indi wuñ fi suñu bopp te duñ fi sax ñu ñëpp dañuy dem kenn ku nekkoon diir bi fi nekk fexeel ba fetal ko jóge fii ñu di la nettali lu baax loo fi nekke woon gëm goo gëmoon yàlla ak di topp yàlla moo gën a rafet foofu ñu lay nettalil ab caaxaankat nga woon reeloo nit ñi moo doon sa métier yàlla bindu nit ñi ngir reetaan dinaa ko wax ko waxan mbokk yi dañ ñoo ngir ñu jaamu yàlla wa annakum ilayna la turja'un loolu dañ ko bàyyi xel dañ ko bàyyi xel kon te wàññi kaf yi wàññi caaxaan yi te yokku njub gi ak jubal gi xemem loo gone yi yu mu baax yi di leen xiir ci yu baax loolu daal mooy li war ñëpp maa ngi koy maa ngi ci soññi sama bopp di ci soññi bokk yu lépp di saare ñëpp di leen ñaanal koor jàmm yàlla nañu ko teewee at yu baree bari te rafetu teewin te sunu borom jaare ci ñaan ya yu baax yi ñuy def teggi balaa bii daj àdduna yàlla delloo ci suñ sagu ñu ñëpp ñu man dellu ci lañ woon waaye lu ko gën a rafet ci lu baax nañ doon dundee ñu di ko dund yàlla la mu wax ne laallahum yarji'uun nañ ko bàyyi xel saa bu wàccee aw tiisit jublu jublu jublu ñu lor yërmandeem ak mbaaxam ak cofeelam ci jaamam ñi su na mu jékki-jékki bëgg leen a lor waaye saa bu ñu màmmee nag mu wan leen mooy yàlla dëpp leen ngir ngeen mën a jariñu nañ ko déggee noonu te delloo ci suñu borom kon yàlla danañ jëriñ maa ngi jégalu di baalu àq ñëpp di ndokkeel ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. seen Rafa jus ak see ba léegi di 100 pour cent naturel coono moom jeex na fi ndaxte Rafa jus 100 pour cent naturel amul benn colorant amul it benn additif artificiel li ngeen di faral di gis yenn xeetu jus yi mu koy taaral ak di koy yàggal dama ni mbokk yi Rafa jus dafa wuyu turam amul benn substance dafa doon jus conditionné léppam di fruit 100 pour cent fruit naturel lay doon. loo ci mën ci bëgg mu doon xeetu fruit am na buy am na bissap am na tamarin ñu gën koo xam si Dakar am na jinjembe ñu gën koo ràññee si jingeer lépp lu ngeen bëgg si fruit su liggéey bu mucc ay mbokk yi ne woon naa la Rafah jus amul arôme artificiel amul colorant kenn yokk si suukar bu doo ko mën a naan dafa doon lu équilibré boole ceeg nag liggéey bi sedd na sell na ndaxte Rafah jus lépp la respecté mbokk mi toog jeex na lépp loo ci bëgg si quantité mu doon bouteille un litre wala xaaj bi wala sax bouteille bi gën a ndaw mu doon da nga nekk si épicerie ñu yor mboolem magasin bu dee da ngeen bëgg en demi goutte di def détail wala sax ngeen di jënd sur commande Rafah jus 100 pour cent naturel yembal na lépp fu ngeen dem fekk ko